aus billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim kun fayakun tv ñu di siyaare bu baax di leen baal xaq te di leen ko baalu si seen bi nga xam ne ni yéen a ko bëgg seen bopp muy kun fayakun tv seen bi nga xam ne ne moo bodd wàllu secret lépp luy secret mi ngi nekk ci mbootu kun fayakun di 236 si 236 boobu si leen bi tibbe di leen si jox pour ñëpp mën a jariñu kon moo tax seen bi seen seen la yéen ñi nga xam ne yéen si abonné da ngeen di bës cloche bi vidéo bu ñu dugal ngeen man koo gis seen mbokk Cheikh Ibra taaliba Mouhamadou Moustapha Bassir bi di leen ko defal fii si Kun Fayakoun TV di siyaara tamit sang bu tedd boobu nga xam ne ne amunu fayam ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ak tawféex tey nag secret bu doy war la leen indi si wàllu toj liggéey raxas yaram ba mu set wecc toj liggéey bu si mën a nekk ak tooke bu si mën a nekk ba mu set si sa wàllu yaram boobu biteel la leen indi ndax ñun suñu biteel dafa doy waar waaye biteel bi nga xam ne ne gàlla euh, liggéey bi mu nekk nekk si sa wàllu yaram yàgg si lool boo xasee ba jël biteel bi liggéey boobu day toj ci sensé muy liggéey boo xam ne ne moo nekk ci sa wàllu yaram gis ngeen nag dañ koy wax di ko wax lii moom fexeel ba mu laal si sa wàllu yaram liggéey bu ci nekkoon daj na kort bu si nekkoon daj na tooke bu ci nekkoon daj na tax jamono ji ñu bari liggéey rek a leen jàpp jóge na liggéeyu jàmm wala tooke nekk seen wàllu yaram nga xam ne ne guddi gi dañuy gént rek te buñ xasee ba ju bay gént ba yeewu pour ñu nelawaat day xaw a jafe day jàpp nag seen xel mi di leen jaxase lu nu yaakaar mu yàqu lu nu dugg du sotti lu nu dugg nag ba si digg ba dañ siy génnaat te duñ xam lu leen si génnee loolu yaram bu setut moom moo koy waral wala nit bëgg laa defal ba nga am si yaakaar mu yàqu wala nga nekk si benn projet ba am si yaakaar projet boobu dafay yàquwaat ndax lan sa yaram moom moo setut kon nag lii nga xam ne ne benn yoon nga koy sangoo lépp lu mu fekkoon si sa wàllu yaram mu toj ko waaye nga sangoo ko ñetti fan yu tegaloo muy ñetti guddi tegaloo boo paree nga wut juróom-ñaari muusu gerte saraxe ko kenn mënatu liggéey ba mu jàpp la kenn laa wax mënatu liggéey ba mu jàpp la bileene nga sa yaram kooku mooy bileene yaram nit ku la doon jéem sax bu xasee ba commencé rek dañ naan ko bàyyil kooku ndax yaramam dañ koo bileene képp ku nekkaat sa yaram wàllu yaram gis di si sonn di si demaat feneen di ko liggéey day faatu ndax le moom moo tax ña moo tax ñetti guddi yooyu du génn ñetti guddi rek nga koy sangoo te gis nga boo xasee ba jël ko ba commencé koo sangoo dana la woon lu ne maanaam képp ku la daal def lu bon wala képp ku la daa liggéey danañ na ko woon nga koy gis ndax lan bitéel bi moo am doole te bitéel bi nag comme ñun suñu liggéey dañ naan foo mën a nekk si àdduna boo nu wooyee mën na la ko livrer fii ba mm, Hollande eh, dafay dem ndax yónnee nañ ko fa fii ba Suisse dafay dem kon nag réew yu sori yooyu ba si Angleterre dafay dem xam danañ ko fa yónnee ndax wàll jamono ji yaram yi dafa war a bideenewu yaram yi dafa war a set si wàllu liggéey moo tax ñun ñi ngi fii nag si Dakar Kër Massar Jaxaay si terminus 56 bi bu fekkee mercredi la eh, ak samedi ñi ngi fas Fass Colobane kër yaay Mbaye Gueye Faye bi woy boo ñëwee ba foofu boo laajte kër sëñ bi rek danañ la ko woon suñu numéro téléphone mooy daw noonu heure boo nu soxlaa ñun ngay jot boo nu woowee ñu dimbale si soxla bi kon nag seen bokk Cheikh Ibra sallallahu ala Muhammad mu leen di siyaare di leen ñaanal jàmm ak tawféex di leen wax rek bagage yi moom ñun moom faj ñaan yàlla mooy suñu métier te incha allah rabbi képp ku fi jëflanteel doo ko rëccu ñi leen di siyaare nag di ñaanal si at mu bees mi di leen fàttaliwaat sarax juróom-ñaari kilay mburu ba si quarante képp ku ko man nga génne ko nga saraxe ko te lépp nag euh, nang si def na ko def xàddee yenente bi na ko def te yàlla tax waaw kon nag fi amaani laa ngeen jëf waay